député yi ñoom dañu nekk li ñu naan relais maanaam euh, ñoom ñu ngi ci diggante bi euh, ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yore programme bi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, doomu Sénégal ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew te it bu ñu jàppee rek ne feebar lu loo xam ne dañuy ñëw rek xaar nit ki feebar ñu faj la feebar moom dafay da ngay fagaru ngay fagaru balaa ngay faj fagaru nag pour nga fagaru da ngay boole lu bëri boole li ñu naan euh, prophylaxie maanaam euh, euh, fagaru ci suñ suñu jëlee tey sibiru war nañ ñi jël ay moustiquaire war nañ xool naka la ñu xool tamit yoo yoo yooy naka lañ leen di gàttandoo fi ñuy nenee fi ñuy également développé naka la ñu puudaree tamit zone yeeg yooyu waaye loolu yëpp tamit dafa ànd ak waxtaan ak population yi pour wax leen ne ah lii nii ngeen war a def nee la ngeen war a def donc loolu député yi am nañu rôle bu am solo loo xam ne war nañ ko war nañ ko jouer parce que ki nga xam ne moom mooy yore mbirum coordination programme bi moom techniquement li mu war a def mi ngi koy def bu ko defee tamit député yi ñoom ñooy fexe ba mbir mi law ci biir réew mi ak ci euh, ci bitim réew doomu Sénégal yëpp xam lan la ñu war a def bu ñu xamee lan la ñu war a def dafay gën a yomb euh, ñu fexe ba vraiment fi comme ni ñu ko waxee rek 2030 Inch'Allah. nous ferons programme mais santé en général tout est pour que parlementaires comprennent que comprendre sous ministre des finances nous ñu programme euh, euh, PALU.

ci ay gox-goxaan la ñu jógee am nañu dëkk Kédougou am nañu dëkk Ziguinchor am nañu dëkk Matam am nañu dëkk Tamba mais am nañu dëkk Ndakaaru gi comme man mii di wax ak yéen nga xam ne dafa am ay boo déggee canaux mooy ki yooyu ngay romb noonu euh, Fass wala feneen mais c'est dafa tijjeeku dara tëju ko ba nga xam ni pour que musique gi mun fa développer day yomb ba mu mën a dem kii maintenant bu fekkee dañu dem ñu sensibiliser li nga xam ne mooy communauté bi ñoom dañuy dem jël loolu noonu xam ko comprendre ko ba mën a xeexal nga xam ne préventive bi moom mooy ëpp solo que sax prévention bi mooy ëpp solo sax que li nga xam ne mooy ñëw faju parce que faju aussi da ngay xalaat que ni la nga nar a dépenser booy faju su fekkee prévention bi la doo ko dépenser mën nga dépenser moins kon je pense que bu ñu leen sensibiliser ba ñu comprendre rek ñoom aussi à leur tour dinañ dem sensibiliser ñi nga xam ne ñooy communauté yi nekk ci seen localité yi